salaatu llazi fi kulli. bisaarin wa fi safar. ko daan defee euh, at bu nekk euh, bi magal bi di jub si am taxawaay boo xam ne police da ko ci am euh, moo tax tey bés bi ñu ànd fi comme ni ko sëñ ji li waxee pour def lu ñuy wax mission de reconnaissance ndax mission boobu li ko wundu mooy ñi nga xam ne ñoom lañ fi indi ku ci nekk fañ lay teg ñu la fii nga war a nekk fii ngay tàmbalee fii ngay yem bu ko defee ci bés ba liggéey bi mën a gën a jaar yoon waajtaayu màggal Tuuba nag euh, police dañ ñu jox ndigal muy am taxawaay boo xam ne dañ koy am ci waajtaay bi taxawaay bu ñuy am ci bésu màggal gi ak bu màggal gi jàlle bu dee ci waajtaayu màggal gi li ñuy def nii tey ci la bokk loolu aussi euh, kilifa yi xam nañ ne bu màggal bi jub si dëkk bi day xaw ba tax na yónneewaat nañ yónnee nañ fi ay ndaw pour ñu renforcer ñu pour ñu gën a téye circulation bi ñu gën a accompagner ñi nga xam ne ñoom ñoo ne ci dëkk bi bu loolu weesoo aussi opération sécurisation bi nga xam ne comité d' organisation bi sàkku woon nañ ko yooyu aussi euh, depuis euh, premier août mun naa wax ne tàmbale nañ ko mooy avant ñuy tenir euh, réunion nationale bi opération yooyu xam na ci yoo xam ne ñun ñoo koy def ñu nekk Touba gi mooy commissariat bu Janatu bu Ndaamaatu ak poste de police bu Guy Mbind am bés yoo xam ne dañ ciy lëkkaloog Mbàkke ndax euh, ku wax Touba wax Mbàkke ñooñu dañ ci ànd ak commissariat bu Mbàkke di def opération yooyu ak ñi nga xam ne nag ñu nag jàmm ñu nag waa yi ñoo koy ànd di ko ci def pour mën a gën aar euh, kaaraange askan bi loolu daal euh, moo nekk taxawaay yi euh, comme niñ koy tàmmee di waxe ñu ne euh, mbiru Sëñ Tuubaa amul tànk ginnaaw tànk kanam rek la am mm-hmm. suñu kilifa yi aussi xàmmee nañ ko noonu mm-hmm. ndaxte daaw mun naa wax ne ci ci région bu Diourbel yëpp ndax magal gi noonu lañ koy jàppe région ci région bi yëpp lañ koy jàppe muy commissariat bu Bambey commissariat bu Diourbel bu Mbàkke ak ak yu nekk Touba di dispositif yëpp dañ leen ciy boole ba tax na daaw ñu ngi engagé woon ñeenti junni ak téeméer ak juróom-benn ci ay te suñu kilifa yi euh, wax nañ ne euh, loolu dañ koy yokkat pour gën a euh, taxaw taxawu kaaraange kaaraange màggal gi ba nga xam ne képp koo fi ñëw doo fi jële benn loraange booba nag lim bi lu mu mën di bari Euh, mënuñoo nekk fépp ba tax na ñu ngi lay ñaan nga gën a ñaaxaat askan wi ñu gën a jàppale service de sécurité yi bu ko defee yenn yi nga xam ne mënuñ koo fekke ñoom buñ ñu ci euh, avisé dañ ci gën a euh, mën a taxaw taxawaay bi war loolu daal lañ waxoon ne buñ ñëwee dañ la ko dañ jaar fii nuyu nuyu la ziar la yëgal na loolu di taataan aussi say ndigal bu ko defee ñu gën a mën a parfaire li nga xam ne defee liggéey di sant aussi sa kanam sëñ jili yi nga xam ne moom moo ñu booleel ndax euh, saa yi buñ ko wooyee ci wàllu liggéey bi taxawaay yi mu ci war a taxaw yëpp da koy taxaw yombalal ñu ko aussi ba tax na aussi ñu koy gërëm bu baax a baax di ko sant jërëjëf. rahmatullahi taala wa barakatuh bu baax a baax commissaire spécial bu Touba di jegaan seen. ak mboolem ñi nga àndal ñëpp ñu bàyyi ko ci région Diourbel ñu bàyyi ko région Thiès seen kilifa di ministre xam ci abram mu ngi ci Abdou Sall ba mooy wax ne moom lañ fa tegaat kon ñu bu baax a baax di leen delloo nuyu di leen sant di gërëm ci kàddu yi nga xam ne jot leen ko léegi ne ko sëñ bi laat ka waxee rek daanaka wax ji jur muy gudd ndax yéen seen liggéey boobu xam ngeen ko rawatina wàllu sécurité te sécurité moom mooy jiitu lépp ndax nit sax bi suñ borom wax ci alxuraan ne falyabudu rabba haazal bayti allazi at'amahum min juu'in wa aamanahum min xawf nit balaa mën a balaa tala jaamu yàlla faw biiram fees mu bañ a xiif waaye faw itam mu nekk ci sécurité kon sécurité moom mooy li jiitu ci àdduna ndax jaamu yàlla sax ba demee ci lislaam li ñuy tuddee salaatul xawf sa am am na rawatina bu ñu nekkoon ci guerre wala yu mel noonu moo tax sécurité moom mooy jiitu lépp ci àdduna te rawatina dëkk bii di Tuubaa nga xam ne Serigne Touba ñaan na suñu borom ba tàyyi mu dëkk dëkku jàmm ndax bi mu nekkee Mbàkke boobu fa njëkk a sanc kër bu moom waaye Daaru Salaam njëkk a sanc ci ab dëkk ku ko tuddee barab wane na ne nitu jàmm la loolu Serigne Touba ñi fi nekkoon di colonialiste dañ koy yéex a dégg ba nangu ne ñoo juum ci moom waaye mës a yëkkati fitna mas sa bëgg fitna mas sa woote lu jàmm naka jekk mbindam yëpp boo ko toppee si njëkk ba ci mujj waxee bu mas sa sopp mm-hmm. mooy woo nit ñi ci jàmm ak dal mm-hmm. lu jamono jaxasoo jaxasoo wax jënd loolu lay diggante woon nii ngi fàttali 2012 2012 bu réew mi nekkee ci tension bi métti nett li woon ko ndax waxi sëriñ bi la te sëriñ bi ay waxam waxtu na dee tollu jamono ndax bokk na ci am waxoon mooy maa ngi digal taalibe bi fu ñu mën di nekk ñu nekk ci ak dal te bàyyi lépp loo xam ne mën naa indi ay rëng-rëng ci biir réew mi lépp loo xam ne itam mën naa jax-jax xool nit ñi dañ ko bàyyi kon sëñ bi bokk na ci ki ko boole doon mu nekkoon jaareem nekk bokkoon ci mooy ki ñuy wax commande benn commande de cercle la ko ci yooyu jamono muy ko xam sëriñ bi bokk na ca bi muy seere seere yi mu doon wax mooy ki ngeen de ki ngeen daa dégg ñu joxoon ko autorisation muy dagg sàkkiti njaare bi nga xam ne day mën naa toog ba trois heures ci guddi wala quatre heures ci guddi wala fajar wala digg bëccëg mu jekk ceeg dagg sàkket bi di wër kër gi ngir wër sëñ bi ba xam ci lu ne waaye bokk na ci rapport yam def ngeen yu bari gis nañ ko mhm. mooy ci ma gis daal xaw ma ba mu xaw ma wutal nit waaye bi moo xamee daal ki gën a gàttum xel wala ki gën a def li ñuy wax injustice mooy xool si Ahmadou Bamba di ko jàpp ne day woote lu jàmm loole nag ci lañ nekk ba nëgëri kon nag bu yàlla defee àdduna dox mu bindoo ne kataballahu tabaraka na taala anna dawata nasara intaxalu fana min aydihim mu wóoru tubaab yi dana toxoo fii jóge ci seen loxo jëm ci seen loxo mm-hmm. mu dem ba réew moom moom suñ bopp mm-hmm. bi moom mooy suñ bopp yàlla def suñ borom day séddale Serigne bokk na ci lim ñaanoon faggulu faggulu ñun nguur barke la ñu faggulu mm-hmm. wàllu adduna gi yàlla teg ko ci seen loxo moo tax ñëpp ñu suñu kilifa yu tëddee sax daa ngay dégg ñoo yéen ñi nga xam ne yéen la yàlla denk mbiri adduna bi kon loolu suñ borom a koy def mm-hmm. abdan aataynahu rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilman ak inna makkanna lahu fil ardi wa aataynaahu min kulli shay'in sababan loolu ñaari ay alxuraan lu yoo xam ne suñ tubaab boo xam doole ji nga xam ne suñ borom moo koy def jaam bu ko sopp muy nitu yàlla ak doole yi àdduna ji nga xam ne suñ borom dafa fell ci ak ngorom jox ko muy ñaari ñaari doole yoo xam ne daa mel ne ñaari ñaari yi nag bii jëm nii bii jëm nii bokkuñ fu ñu jëm mm-hmm. bii dafa jëm ci yàlla bii jëm ci àdduna mm-hmm. mënuñoo tàggoo ñooy làgg waaye mu waruñoo ànd tam mm-hmm. ndax bokkuñ fu ñu jëm kon nag ñu leen di sant ci taxawaay bi ci li weesu ndax lim bi ngeen wax bari na lool waaye dëkk bi toll na ndax xam ngeen li mu ne day tax ñu mën a am sécurité loolu yéen a ko a xam kon loolu duñ ci duñ ci sori waaye ni ngeen ko déggee jiitu nit ñi ci mooy xam ne màggal bi lu ngeen defoon daaw faw mu yokk ndax nit ñi day yokk ndax mboolem itit yëpp war na ne màggal bi at mu jot dana yokk lu 10 pour cent loolu dafa bëri boo xoolee diggante 2009 bi ñu ko defaatee def ko 2016 diggante bi lu fi yokk kenn xamul mu toon ay millions la def mm-hmm. ndax màggal bi dem na ba ci xayma yi ñu doon def daaw wane na ne li ci màggali si te doonuñ ay murid sax bari na lool maanaam jeex dem na ba ñi nga xam ne dañuy julli sax un pour cent mën nañu mm. kon ñëpp xam na ni ñëpp ko bokk mu bokk ci li gën a indi jàmm ci Sénégal màggal gi bokk na ci sooy ci mm-hmm. ndax màggal gi boo fi ñëwee xàmmee woo kii ci fii la bokk mm-hmm. xa waxuma la sax tarixa dem ba xàmmewu sax diina yuñ bokk mm-hmm. ndax kon xam na ne bis bi da ko saw suñu tubaab bàyyi ko woon tubaab bi tooñ ko tooñ bu rëy waaye nag tool bi kenn sañu cee dellu si mhm. ndax moo bind ne a fawtu man de daa daal i turoon di wa chima nafaahum li xëy di sarmada ndastu at fan mhm. da leen ay jéggale mhm. moo tax sëñ bi daa daa wax ne Sëriñ Tuubaa du ku ñuy xulool du ku ñuy xeexal ku ñu topp la ku ñuy liggéey kon loolu itam ñun ñëpp war nañu ko xam yéen itam kon ñu leen di soññ ci loolu ci ngeen fas yéene yokkaat ko ndax barki démb rek yàlla def na maaroom fi gis mu xat lool. Mhm. daanaka diggante sama kër ak jumaa ji rek am naa fi waxtu. Mhm. ma gis ne li ko gën a indi dëgg-dëgg mooy rond-point yi moom jafe-jafe. Mhm. nit ñi kenn koy da ngay bëgg a lijjanti sa bopp te loolu seen xam-xam yéen moo tax fa sansa yow laa jëkk war sa fa jotuma te ginnaaw bi laa ko préfet wax ko ne gi ni yokkoo moom it ndax buñ ko yamalee ci semaine màggat gi rek day nekk gàllankoor ci nit ñi ndax bu safar bi duggee léegi nit ñi dañuy dëkk bi di daal di fees fi mu toll nii daana xaw naa fees mm-hmm. moo tax dem bi dikk bi di def la loolu tax waaye bi ñu ko waxee fa sens rek ci gis naa ne soppi mm-hmm. kon nag loolu itam ngi leen ci sant di leen ci ñaax ñi nga xam ne ñoo fii ñëw itam ndax yéen ñi dëkk ci dëkk bi xam ngeen dëkk bi ni mu bindoo ndax Touba moom day ab dëkk boo xam ne dafa nekk ci biir senegal waaye yor doxinu boppam moo tax biri ñu ne bu ñu tuddee ne brigade gendarmerie bi fi seen village di ko indi brigade gendarmerie spéciale la ñu. Mhm. ñu fi police ñëwalee suñu dañoo bind commissariat spécial. Mhm. li indi spécial gi nag mooy xam ne ci biir Sénégal la bokk ndax foofu itam dana am tuuti lu ci leeral loo xam ne fan yii maa sëriñ bi ñu ngi ci waxtaan na ci wax ju si ju si ma sa wax waaye ni ko nit ñi déggee la ci sëriñ bi bokkut. ndax waxtu ne yaa ngi dégg nit ñi di wax naan Touba daa war a am autonomie autonomie soxluñu ko ndax loolu ku xam ne adduna fi àdduna toll adduna mm-hmm. dajaloo la gën a soxla ci tàggale ko te Sëñ Touba moom day dajale nit ñi waaye du leen tàggale mm-hmm. boo déggee ñuy wax xëy na li ñuy wax statut spécial mm-hmm. moo tax ñuy wax autonomie bi moom ca jamono yi Sëñ Saliou am Abdoulaye Wade bi mu nekkee président amoon na ci xalaat wax ko Sëñ waaye Sëñ Saaliw ko gànt loolu laa waral rek man ba nëgë ni lu ko nit ñi xalaat xalaat it du ma ci bokk ndax doomu Sëñ Tuubaa moom dañoo dañoo dañuy jiitu jamono te xam loo xamut kon loolu statut statut spécial bi li ko indi mooy ñëpp xam nañu dëkk bi ñu ngi fi tere loo xam ne looy réew mi terewu ko ñu ñu fekk si ñoom ndax seen i bilaat ko bindoon ca yooyu jamono Abdou Diouf fi nekk procureur bi mooy tere yi ñu fi tere ba léegi yu mel noonu ak yeneen yu ni demee yu bari mhm. yoo xam ne tolloon naag àdduna moo ko indi naa ci fàttali tuuti 2014 loolu amoon na fi ndax président Abdoulaye Wade daa woote woon Abdou Wade boo xam ne mooy indi li ñuy wax parité ci réew mi bañ ca àggee 2014 fekk na man teeloon naa ko bàyyi xel 2013 mhm. laa tàmm di ci dox bañ àgg ca moom andiwoon jafe-jafe seen bi nga xam ne ci dara xam naa fa ma ca woon ngir gànt ko ndax lëkk bi lu ñu fekk doon doomu Sëriñ Tuubaa def ko rek inna wajadna abana ala ummatin inna ala atharihim muqtadun la jël lu lu moom mi kilifaam day wax ne buñ juumee ñoo juumoon ñoo ko teg suñu bopp Sëriñ Sidi day wax ne buñ juumee ñoo tooñ ko teg suñu bopp ndax lu fi doomu Sëriñ Tuubaa bàyyiwul rek waruñu koy jéem a def kon foofu rek lañ ko teg bañ ca àggee itam yàlla def Sëriñ Sidi Moxtaar moo fi nekkoon di Sëriñ Tuubaa bañ ci àggee ba jafe-jafe am ba dossier bi toll conseil constitutionnel bi ñuy wax tey. ñu mm-hmm. ma ko fàtte ba tey bisu àjjuma la sëriñ bi boobu président Macky Sall moo fi nekk ñëpp am ci jaaxle mu yón ma ci sëriñ bi moo war Cheikh Ndiaye jot ko fekk siñ bi nga Mbàkke Kajoor wax ko ko ne ko ah, ñoom def nañu jaaxle ndax lii loi bi da koo nanguwut ndax parité bi ñu tëri ci Sénégal président Abdoulaye moo ko fa defoon te ñoom sëñ ñooy jëfe lu dul wax moo ko sëriñ bi sëriñ bi dama nee ko xam ne Touba dëkkub daara kon nag lu ma fekkuloon sama kilifa yi def ko du du dañee ci man moo waat kooku moom mooy kon boo gisee ñu wax statut spécial yu mel noonu tax mm-hmm. ndax loolu itam day day day indi jafe-jafe ci ci ñenn ñi ndax xëy na Tuubaa lu ñu bëgg ñu fekk si ci waaye bu ñu soñoon tam mu nekk lu lu yoon waaye nag bedd ko ci biir biir tubaa moom biir senegal moom Tuubaa sàkku ko te mosu koo sàkku te du ko bëgg loolu suñu saa yi laa ko laa ko dégg laa ko dégg ci lam daa waxoon Abdoulaye Wade ne ko Tuubaa lu yàgg-yàgg de na xam ne ci biir Sénégal la bokk beddiku te du mas a beddiku loolu na kon dars bu mag boo xam ne ci war a jàngat fi ma koy jeexale rek ci biir màggal sëñ ji mi dégg na tay ci réunion yi ñu du ko fàttali mooy wàllu laissez-passer yi laissez-passer boo xam ne wér na ñu fexe ba muy jàll laissez-passer yi nga xam ne commité bi ñoo koy am di ci ndax xam nga ne dal dal yi dafa bari ke Sëñ Tuubaa di yenn dal yi faw ñuy dox ci diggante yi waaye léeg-léeg dañ leen tëye man mii di wax ak yéen sax léeg-léeg ñu tëye waaye nit ñi tolluwuñ ay tolluwuñu ay ay fu ñu toll. Mm-hmm. néew na màggal Tuubaa ñëw ba jàll ma jógee sama kër te tey wuñu mm-hmm. waaye yàlla def na man kon xam ne àdduna. Mm-hmm. tey luwaa comme dañ ko tëri ñëpp di ci tënku. dama ci wane wu am na ñoo xam ne nag xëy na euh, fi ñu xalaate tolluwut. bu ko defee bu waa moo indi xëccoo bi seen digg ak police yi. waaye nag nit ñi itam faw ñoo xam ne police yi fi nekk ñoom lañ fi nekk. ndax koo xam ne boo tëddee di nelaw wala nga am jàmm moo la ko may. kooku waroo jàpp ne daa ñëw ngir toroxal la mhm. ay ndigal lañ jot ndigal la itam lu ñu waxtaan la ba mu ba mu diw yoon mhm. moo tax lool itam nit ñi itam kuñ ji tey itam faaw nga ànd ak dal te xam ne aw sant du lu ñu bind cib jeex mhm. daraje du lu ñu bind cib jeex kon bu ñu tëralee lu waaw faaw ñëpp ci war a tënku bu ko defee ñi ñi fi indi itam ñu fexe ba gën fee ànd ñu yàgg ci mission yi ba ràññee nit ñi ba nga xam ne ku ñu tey it daañu la tey ci illay wóor mm-hmm. ndax waxtu wala jàmba di dee bëreeg wax yi mm-hmm. loolu laa amoon ñu mu ci yokk asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala salaatul fi kulli bisarin wa safar